man maa ngi tudd euh, Alassane Ndoye maa jiite syndicat des travailleurs du transport routier du Sénégal affilié à la mayor député maire de jender waaw tey maa ngi Kaolack tey day yàlla dafa dogal suma njaboot gi nga xam ni ñoo lëng Sénégal gépp ñoo fi daje woon tey ci ci daje bi nag di daje boo xamante ni bii bu bu am solo la boo xamante ni bii tax na yëngatu si transport nga am yaakaar ni transport dana defar waal eh, lolu nak tay ji moy ki taxaw ci sama wet di suma rak di Damlo, ak camarade yi mu taxawal ni ñom pap ñang ak ñom num tureti eh, pap job bu ties nga xamni moy premier adjoint bu Damlo. tay ji dañu daje woon doon installé damloo Damlo, dañu ko falon si le 11 mars fële si Dakar bi ñu ko falee onze mars nag day laaj installation. dañ ko fal comme lan. président national di regroupement du Sénégal loolu la ñu ko faloon le onze mars Dakar tey jii le 13 ñu war ko installé fii si Kaolack nga xam ne président regroupement Sénégal yëpp dañ fiy daje pour dëggal loolu. loolu moo ñu indi woon fii ci Kaolack. gannaaw wax nañ si am na sëriñ bi day suñu sëriñ la waaye nag nit lu mu doon doon def sëriñ ak loo ko respecté respecté da koy wax li nekk si yow. wax nañ ko ne ko señ bi mu naa mënu ko ñun dañu jàppoon lo xamni yaakaaroon nañ ni nit mënu la wax bañu ñu ko kon su fekke magalu poroxan dafa ñew nga woñu ñu nañu dañu bëggoon ñu dakkal grève bi ñu man lu dul wéy sa ndigal waye nak amna luma ko waxon kéro par respect di suñu sëriñ nu yaakaar ga ginaaw yalla ak yonent bi bar sax ak suñu wajur xamal na ko ni dal ñun dañuy door nit nak buñu ko dé door so bëggee mu nopi da ngay wax ki kay door téel yar bi nga door ko ni noppi waxoon nañ ko nag dinañu bàyyi grève bi waaye bëgg nañu ki nga xam ne moo nu taxaw tegoon li tax ñuy grève nga wax ak moom mu teggi li mu ñu tegoon. loola nag ba léegi ni teggi googul waaye yàlla dimbali na ma nag si ñetteelu fan ci tey ka nga xam ni yaakaar naa ni ku ko jigéen la te boo ko yóbbantee tey bu subaa ma jot ti waxaat naa ko ko démb ni ko nag neel sëñ bi nun waruñu ko soññ ndax xam na suñu yitte waaye fàttali lay doon kon nee ko lañ ñu tegoon teggikuwul waye ñu ko ci déglu ñu ngi demander audience mom mu réservoir ñu pour ñu wax ka la nga xamni mom moom la ñu jàpp moom la ba tax ñu dem grève loolu nak su fekkene ni bi señ bi néna na dara ci ki ñu ko téggon dañ déllu waat parce que ki ñu ko jakkar loolu mbeur la mbeur nak su ma nee bari dooree soxor yow muy bëree mom la ngay uti lang té ñun yaakar nañ am nañu lang ku ñew gis jëm tay mi nga xamni ni Sénégal gëp dañu nañ fi ku ko nek xamna na ni mom mu mbër am nak lang kon damlo am nak lang go xamanteni ki nanga dox na si ay teggin ak sutura del wax sa soxla ki nga ko war a wax waaye su fekkee da ngaa wax nit ki lu mu mënta defu ko bu boobaa nu jàkkaarloog moom